donc dinañ ñëw tey buñ nee dañ lay feetal ñu ànd ak Sénégal feetal la ci suñu tur ci turu président de la république président Macky Sall ak ci turu gouvernement am yëpp daanaka euh, fii bari na fi ay ministre wala ancien ministre sama frère nga nële maa ngi lay nuyu ah gis tam lépp bu ñu paasee këru dine yi parti politique yëpp ñoo ngi toog opposition pouvoir ñépp boo wootee dinaa ñëw tam ci sa wet témoigner ci li ngay représenter ci secteur privé témoignage nag dafa am yaa am na baat bu may dégg ci yow mu neex ma lool ñu daan ànd fu nekk Malaisie ak Singapour ak fu nekk ànd nañ fa ne sooy seedee da ngay seede loo xam du la wóor li ma wóor ci yow bari na ci sa diggante ak création de richesse ak création de rêve tout court je dire que Serigne Mboup et un créateur de rêve ñaata société ñoo génne ci CCBM nekk ay rêve est un créateur de promesse et loolu ah dañuy ñaan mu wéy. li gën li ëpp ci suñu économie waa bitim réew ñoo ko téye te loolu tànk mi ngi am rek développement du am dañu yàgg di wax ay croissance ak ñoom seen waaye boo amee croissance ñu ne. fukk nga am xamal ni juróom-ñett yi génn réew mi looloo tax nag am secteur privé bu am doole dafa am solo moo tax yu mel ni CCBM nekk fi depuis ay ati at di liggéey di employé ay junni junni sénégalais parce que secteur privé mooy créer emploi di fay ay tax man mii mus naa ñëw doxant boobu maa ngi lémp xawoon naa ko xoos tuuti nag ñëw ñëw xool càmbar CCBM nu mu nu mu doxee ak waa lémp waaye xam naa ni contributeur impôt bu bëri la di créer emploi direct emploi indirect ku mel noonu état da ko war a jàppale moom ak ñi mel ni moom ci réew mi yor nekk ci secteur privé bi nu mu koy jàppale nag mooy lépp loo xam ne entreprise réew mun na koo def nga bañ koo jox waa bitim réew ba nga xam ne waa bitim réew bu bëgg a ñëw liggéey sax day obligé ñëw lënkaloo ak doomi réew mi su bëggee liggéey. waaw Serigne Mboup ak man nag duñu yàgg euh, te lii di di di bësu fàttaliku ndax bi muy door CCBM booba maa ngi doon njiit ci ay banque te ñu ñu ànd liggéey. ñu ànd liggéey te ca booba ma gisoon ci moom euh, xarañ bu bu mat sëkk ak vision. loolu moo mënoon a indi te néew na ci Sénégal euh, ñu ñu ko ñu ñu ko fiy gis koo xam ne xale la doon na ci waajuram ndax kat baara baara boobu liggéey na liggéey bu bu am maanaam waaye mu màggal ko suqali ko yóbbu ko ci yeneen dimension te loolu taxawul ndax ca booba maa ngi fàttaliku bi ma daan dem di ko seeti ji di seeti usine am li ma fa daan gis mooy montage split ak climatiseur tey moom bi ma fi ñëwee ñu may wan ay ay 40 tonnes naan na fii lañ ko defee kon loolu seddal na xol.